toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous suis Ben ici à Rufisque, au niveau du terrain de football, à partir du 23 jusqu'au 30 décembre, Inch'Allah. C'est ma première édition, mais euh, de à képp dakarois sénégalais di wo ñëpp daal ñu ñëw di woo autorité yi monsieur le maire Alioune Mar maa ngi koy woo di wo albendo yi maa ngi woo ñëpp ñu jàpp ci incha allah. léegi euh, ku fi ñëw di nga fi fekk ay salon di nga fi fekk électroménager di nga fi fekk ay jouets di nga fi fekk lingerie di nga fi fekk ay cuuraay. ñoom fer ñoom bin bin nga fi fekk lépp daal macha allah lépp nga fi ku bëgg daal euh, sa fin d'année neex nga bëgg bégal sa njaboot bëgg bégal soxna si wala nga bëgg bégal sëriñ bi mën nga dox nànk ba ci tayre njaayam bi foire bi fa lay amee incha allah nga ñëw lépp nga fa waa pour jigéen ñi moom ay nuisette yu baax nga fi ay news baax ñoo ngi fi léegi xam ngeen beccu dafa xewaat ay yu baax ñoo ngi fi ay coleseere ay pastiñaf am teel ma maa ngi ñëw yépp a ngi ci biir ku bëgg lu baax daal defe naa boo ñëwee fii di ko fi fekk jarul ngeen di dem marché di dox ba poussière ñëw leen fii ngeen ànd ak seen doom yi ngi ñëw jëndal leen jouet jënd ay bagage bégal monsieur ku ci bëgg équipe sa kër tamit boo ñëwee lépp nga fa teene defe naa ñi ko xamul bariwul de ñi ko xam bariwul ñi ko xamul bariwul parce que ma juumu ne est-ce que du premier terrain bu Tëngéej ku ko xamul aussi boo ñëwee ba ci juuti bi boo laajtee terrain njaayan dinañ la expliquer c'est en face de la case des tout-petits qui se trouve à Cité Gabon Diokoul euh, xeer damay woo meeru Tëngéej yëpp

waaw tontine Baye Zara ay natt la yu Zara di def ay natt la yu Zara di def ay meubles yu ñuy jaay di ko jaay à travers la tontine ak vente par tranche bi tontine yi on forme des groupes de cinq bu ñu weer deewee ñu dajale xaalis bi génn la sa matériel jox la beneen weer ki ci topp ki ci topp ki ci topp voilà, la vente par tranche aussi pour vous, da ngay ñëw moitié de la somme euh, du matos yi pouvez bëgg lire, après le reste on fait en par tranche de trois mois Tontify Zara des jay salon des jay télé des jay frigo on fait aussi des tontines de chambre à coucher tout vous ci vous bëgg rek contacter inshallah au 78 151 89 60 wala 77 813 153 wax ñu sa soxla ñu ko ñu ko amee ñu wax la. sant yàlla rek sant yàlla bu ñu ñu defee li ñu doon ay taalibe sant rek. waa di woo tous les sénégalais rek ñu ñëw.